ak benn euh, corruption bu amoon ci système système bi moo taxoon état bi indi COTECNA pour mun a wàññi fraude bi ak ak ak corruption bi et pourtant l' état du Sénégal en perd de 4 milliards l' année rien que ce ce, ce contrat là bu mu signé avec les les institutions de Bruxelles à à travers COTECNA mais terewul Sénégal état bi mu ci waroon continuer ñu dem deuxième troisième année def 7 ans 8 ans l' état commence à perdre 10 milliards donc l' inefficacité de de cette ci perte yooyu état bi daal di jël beneen formule arrête couper son contrat avec le COTECNA alors bu mu côté comprendre am ñu jël substance su COTECNA bi jox ko ce qu'on appelle un GIE qu'on appelle Orbus GIE Orbus bi mu ñëwee ci la commencé di def la facturation COTECNA après amoon na facturation mais après GIE bi moo moo ñoo jël ko bi ma liiree euh, réponse GIE bi Orbus par rapport ak ñun suñuy suñuy crainte ñoom ils ont dit ne l'État du Sénégal détient 97 pour cent ci ni ko expliqué mooy euh, euh, contrat Orbus bi l'État du Sénégal man mosuma gis man dans ma vie ah peut-être yow nga xam ko état état buy bokk ci GIE di ci am ay action man musuma ko gis groupement d'intérêt économique ñu ne état bi moom moo fa majoritaire man musuma ko gis bu dee am na peut-être xañ na sama sama njàng moo yeggul foofu deuxièmement état Sénégal fu mu am ay action majoritaire à cinquante 51 pour cent waxuma la 97 conseil d' bu ñoo fa ëpp deuxièmement c' est président de la République qui nomme le directeur par décret te ko teg naa loolu amu fa le directeur n' est pas nommé par décret présidentiel troisième point bi mooy euh, système de facturation bi parce que boo xoolee statistiques yi nga xam ne moom la ñu am au niveau de du pivote y a une importation entre 800 et 900 000 conteneurs l' année Alors, pour chaque conteneur dont le montant et supérieur ou égal à 500 000, l'acteur directeur général sort un avis pour nous dire ne euh, la DPI est obligatoire. mais soo gisee cool yi am mooy dafa génne benn avis boo xam ne xam nga avis boo koy génne da nga koy subaase ak un arrêté wala un décret mais il a sorti un avis boo xam ne amul arrêté amul décret parce que ci fond bi ak ci forme bi dañ doon waxtaanee ci avis bi ñun ak douane on n'a pas problème nous on n'attaque pas la douane on attaque un système système bi ñu attaqué mooy booy liggéey ak ay nit ngeen xam ne yow ñoo say intermédiaire entre les importateurs droit de communication ak droit d'information ak droit de waxtaan ak ñoom dafa war a exister seen rapport boobu ñun xaalis bi ñuy collecté douane trésor public lañ koy verser à travers la la douane ñun tey bu ñu xëyoon tey toutes les transitaires du Sénégal ñu ne on ferme les machines liggéeyuñu pendant 72 heures pale bi day yëngatu on fait 40 pour cent du budget de et ça passe par nos mains xaalis boobu ci suñu loxo lay lay lay jaar donc ñooñu buy liggéey ak ñoom ñu nekk sa intermédiaire sa cordon ombilical entre yow ak importateurs yi tu as besoin de discuter ak ñoom ci avis bi boo xoolee moom laa wax ñu ne en cas su fekkee ne amuloo DPI bi da ngay dañ lay douane da lay fixer amende qu'on qui s'appelle le contournement ça peut pas exister la DPI n'est pas un élément déclancer d'un contournement L'élément déclencheur d'un contournement, c'est l'attestation de vérification. Et l'État du Sénégal a coupé le cordon avec Cotecna. Cotecna n'existe plus. donc en parlant de programme de PVI ci biir communiqué di wax ne ku ko ci indiwu lañ léegi ça veut dire que ne yaa ngi outrepassé loi bi donc waruloo jël yow lu lu inexistant bëgg ci créer un existant foofu foofu foofu lañ doon waxee ak ñoom moo tax léegi pourtant déclaration yaa ngi dugg soo amul DPI dañ lay wax ne la demal nga wuti DPI nga def ko ci déclaration bi mu doog a jàll kenn bindatul kenn contournement sa donc li ñu doon wax kon xam nañ ne élé DPI du du élément déclencheur donc muy muy muy loo xam ne lu ñu leen demandé ñu waxtaanee ko mais ñun. ñu ñu ba ci euh, tey douane ministère beeg yooyu ba ñuy jël yenn mesures yi.